alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mabuusi rahmatan lil alamin saydina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibina tahirin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi diin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli si bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu mbokk yi ñuy seetaan fii ci MTV bu Sénégal nu ngi leen di nuyoo ci nuyum lislaam di leen wax lii di jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na nekk seen te nekk si ñun ñoo dellu siwaat beneen yoon ci seen émission taxaw seetlu penc mi xam ngeen ne émission la bu ñëw ci jamono di jàngal xew-xewu jamono di ko jéem a méngale ci njàngale borom bi subhaanahu wa taala ak njàngale yonentam sallallahu alayhi wa sallam ak njàngale borom xam-xam yi xam ngeen ne suñu jotaay bii passé ñu ngi tàmbale woon benn tomb waxtaan ñu diggi woon tey su borom bi dogalee ba ñu dellu siwaat ñu ñëwaat ci ñaareelu jotaay bi dal di continuer tomb waxtaan bi tomb waxtaan bu ñu tàmbale woon keroog mooy lu tax borom bi subhaanahu wa taala bind doomu aadama ndaxte dañu gis nañu bëri fàtte nañu lu tax borom bi bind leen ñu bari fàtte nañu lu tax borom bi bind leen loolu lu koy firndeel bari na lool booy jàngat pénc mi di xool da gis ñu bëri fàtte nañu lu tax borom bi subhaanahu wa bind leen te waxoon nañu suñu jotaay bii paase lu tax borom bi subhaanahu wa bind doomu aadama benn mbir la ngir mu jaamu ko ngir mu dundal suuf ci ay jaamu yàlla mu moytu li nga xamante ne mooy tere yi loolu moo tax soo demee ci Abdullahi ibnu Abbas si tafsiram bu am solo boobu ba muy jàngat di firi maanaa ibaada bi fil aaya mu ne borom bi subhaanahu bindu doomu aadama ngir soxlay boppam borom bi subhaanahu bindu doomu aadama ngir aajoy boppam waaye Abdullahi ibnu Abbas mu ne soo gisee borom bi subhaanahu wa doomu aadama benn mbir la ngir mu jaamu ko ngir mu saxal jaamu yàlla ci kaw suuf moo tax ñu bind ko kon yow bés bu ne soo xëyee rek war nga mën a laaj sa bopp lu tax borom bi bind la dina tax nga mën a fàttaliku lu tax ñu bind la mooy nga jaamu borom bi subhaanahu wa ak kóllëre bi nga xamante ne moom nga fasante woon ak borom bi soo wàccee ci kaw suuf dañ koy jaam loolu mat a bàyyi xel la mbokk yi soo demee ci benn cheikh bu tudd Abdourahman Saadi ci tafsiram bu am solo boobu moo ngi mu ne borom bi subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama wàccee ko ci kaw suuf digal ko ngir mu daal di topp santaanem ngir mu mën a bokk ci ñuy taxe ndaxte soo toppee santaane borom bi subhaanahu wa ci ngay bokk ci ñuy taxe waaye mu ne saa yoo déddoo santaane borom bi ci kaw suuf nga bokk ci ñuy perte soo déddoo santaane borom bi subhaanahu wa taala ci kaw suuf ga bokk ci ñuy perte te da ngay xool penc bi tey ñu bëri déddu nañu santaane borom bi subhaanahu wa taala ñu bëri iblis lu muy woote ci la ñuy gën a kontaanee ci la ñuy gën a sawaree pour daal woy si woote iblis mais woote borom bi subhaanahu wa taala ñu bari war nañ ko gannaaw mbokk yi loolu lu koy firndeel bari na lool lu koy firndeel bëri na lool yow borom alal bi ñaata yoon nga rambu ay jàkka yoo xamante ne ñu ngi koy tabax ay at mënta yegg mënta pare nga romb ko yenn say alal dem ba place boo xamante ne dañ fay fowee nga jël sa alal di ko sànni caakaankat bi nga jël sa alal di ko ko sànni kon yow fàtte nga lu borom bi subhaanahu wa bind la waaye ñaata daara nga romb daara yooyu ñu fay jàngee téere borom bi subhaanahu wa taala nga waroon a jël alal boobu dugal ko ci daara ji ak yu mel noonu waaye alal boobu yépp nga dëddu santaane borom bi dem ba fu ñuy moyee yàlla fu ñuy merloo borom bi nga jël sa alal ñëw ba ci podium bi di ko sànni ci akaatkat bi bokk yi loolu dafay firndeel ne yow fàtte nga lu toog borom borom bi subhaanahu wa bind la kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon na nga yëg ne borom bi subhaanahu wa dafa bind doomu aadama di ko defal imtihaan ci ko suuf di ko natt bi xool ndax dina jaamu yàlla ndax dina dundal suuf ndax dina nekk ci santaane borom bi subhaanahu wa taala wala ko def ah imtiyaan boobu nag kañ lay jeex su doomu aadama bi su faatoo faw doomu aadama bi mu ngi dund ci ko suuf borom bi subhaanahu wa mu ngi lay natt di xool ni ngiy dundee ci kaw suuf kañ lay jeex bés bi nga xamante ne faatu nga soo faatoo rek loolu nag masalan jeex na bu dee mbaax ak yiw nga defoon loolu ngay am ci sa borom bu dee mbon ak yiwadi nga nekkee woon ci kaw suuf su ko defee tamit loolu ngay am ci sa borom ndaxte ku nekk li nga liggéeyoon rek lañ lay fay du ñu jël fayu jàmbur di la ko fay waaye du ñu jël sa fay di ko fay keneen ku nekk li ngay liggéey rek lañ lay fay coow bi lu mu bëri bëri ñun ñëpp dañuy taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu mu daal dañuy xisaab te lan lañuy ñuy xisaabee lu ñu nekkee woon ci kaw suuf bu dee lu baax la borom bi xisaab ñu fay ñu lu baax bu dee lu bon la tamit noonu rek lay demee amul leneen ndaxte borom bi subhaanahu wa taala allazi xalaqa al mawta wal xayaat li yabluwakum ayyukum ahsanu amala borom bi dafa bind dee ak dund ngir lan mu nattu leen xool ku gën a rafet ci jëf kon loolu dafay tegtal ne borom bi subhaanahu wa def laa bind di la nattu ci kaw suuf di xool li ngay dundee ci kaw suuf te yàggatul dara nga daal di jóge ci kaw suuf yow ñaata ay nit nga xamoon faatu nañu génn nañu àdduna bari nañu lool te lu leen yóbbu du la fi bàyyi ndaxte mbokk yi booy xool bariwul kuy toog di xalaat ki nga xamante ne mooy papa yi maamam mooy papa yi maamam bëriwul ko koy xalaat pourtant sa papa yi maam fii la nekkoon ci kaw suuf comme ni nga nekkee ci kaw suuf waaye tey fàtte nañ ko kon jàppal ne yow bés dina ñëw yow it ñu daal di la fàtte ba nga mel ni mosoo jaar ci àdduna bii kon dund boo xamante ne bu gàtt la dafay jeex bu mu la yàqal dund boo xamante ne dafay continuer ba faw bu mu la yàqal dund boo xamante ne dafay continuer ba faw loolu nag lu tax doomu aadama bi di ko fàtte ndaxte moom bés bu ne dafay fàtte lu tax borom bi subhaanahu wa taala bind ko dëddu santaane yi topp iblis topp banneeku bàkkanam ba mu fàtte lu ko borom bi subhaanahu wa taala digal ak lu mu ko sant ba nit ñi tey lu leen neex rek la ñuy topp lu dépp ak seeni bëgg-bëgg ak seeni bàkkaar loolu rek la ñuy topp waaye du ñu topp benn yoon santaane borom bi ñu ëpp ci nit ñi tey da ngay gis benn waaye ci kàttanam ak dooleem nu muy demee di ñëw dangay yaakaar ne kii borom bi subhaanahu wa taala santul ko dara ci kaw suuf nu muy déddoo borom bi nu muy dëddoo jaamu yàlla nu muy dëddoo santaane yi dafay dem ba jàpp ne moom sax du faatu taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala mu daal koy saab kon mbokk yi loolu yëpp lu jar a bàyyi xel la ndaxte nit ñi tey ñoo dem ba amee ay xol yoo xamante ne duñu xalaat xol yoo xamante ne amatuñu ngëm yàlla amatuñu ragal yàlla seen bugg-bugg rek la ñuy topp loolu lay borom bi de walahum ayunun laa yubsiruuna biha ñoom dañu am ay bët yoo xamante ne waaye duñ ci gis duñ ci gis mbaax duñ ci gis lu leen jëriñ fii ci àdduna ak lu leen jëriñ àllaaxira waaye walahum aazaanun laa yasmauna biha waaye dañu am ay nopp yoo xamante ne duñ ci dëgg ñaata ay yoon ngir dëgg ñu lay woo ci mbaax ñu lay woo ci lu lay jëriñ fii ci àdduna ak àllaaxira loolu yëpp nga daal di ko didd mbokk yi suñu jàngatee suñu penc mbokk yi dañuy gis ne dañu toll ci jamono bu doy waar nit ñi sax lu ñuy gën a déglu mooy lu leen amalul benn njëriñ la ñuy gën a déglu am njëriñ lu leen amalul njëriñ lañuy gën a déglu lu leen amal njëriñ ba tax na bu ñuy xool suñu réew bu ñuy jàngat suñuy média sax di seetlu média yi nga xamante ne dañuy woote ci diine dañuy woote ci mbaax dañuy woote ci luy jëriñ doomu aadama bi luy jëriñ jullit bi lu ci gën a bëri média yooyu lañuy gën a gannaawal ndaxte waxoon nañu suñu jotaay bii passé gis nga marchandise bu bon moo gën a gaaw a jar tey bu baax boo doon jaay marchandise bu baax kii di jaay marchandise bu bon kii di jaay marchandise bu bon dana jeexal jeexalaat yow doo mën a jaay dara ndaxte nit ñi ñoo dem ba bugg loo xamante ne yellut jaaduwul te du leen jëriñ fii fii ci àdduna du leen jëriñ àllaaxira kon mbokk yi loolu lu a bàyyi xel la loolu moo tax yàlla daal di misaale ñooñu mu ne ulaayika kal an'aam ñoom daal ñu ngi mel ni ay bahima ay mala ba ci yàgg sax yàlla mu ne bal hum adallu ñoo gën a réer yàlla mu ne ulaayika humul yàlla mu ne ñii de dañu sàggal sàgg boo ñu sàgganee santaane borom bi topp seeni banneeku bàkkan ak seeni buggu-buggu bàyyi ni borom bi santaane yàlla misaale leen ñu ngi mel ni ay bahima ba ci yàgg yàlla mu ne sax ñoo gën a réer bahima ndax de bahima bi lu taxoon borom bi subhaanahu wa taala bind ko ba tey mu ngi ci waaye doomu aadama bi lu taxoon gorman bind ko ndax moom mu ngi ci loolu moo jëra xalaat mbokk yi kon su ko defee rek lu ñeen di dénk heure bu ne nañu fàttaliku lu tax borom bi subhaanahu wa taala bind loolu buñ koy fàttaliku rek dinañu dimbale ñu mën a tënku ci santaane yi bàyyi li nga xamante ne mooy tere yi kon su ko defee foofu la ñuy tënkee rek euh, seen mbokk la woon Omar Sow di leen dig daje rek suñu ñetteelu jataay insha allahu rabbi ci beneen tamb waxtaan ñu ngi leen di ñaanal borom bi subhaanahu wa taala di sàkku ci yéen gën ñu ñaanal borom bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa aleykum wa rahmatullahi